Uh, insurance scheme permit because most people their questions are directed towards the birth certificate itself abarka bake mas um, bay mm-hmm. anin ka modbe konton jibirlal be kaytandi ko kal bismillah na bi programme oto memen uh, lanken man na moli wala nyinte ko uh, wulu kayto nyimba di kam molle anin fanam national insurance fanan kam bo fanan di kam molle mm-hmm. nyola ñiŋ fulolu le miŋ ah, ye a loŋ ko dokonin koto lem i be ni loodula lem yo ñininkaro meŋ ye ñininkaro ke mune moolu sulata mune la ni na i sulata wulu kayito la mhm. a kummata ba ke pour ŋo fatanfansimmoolu ye wulu kayito mo meŋ ti fenin banku diŋiya kayito le maati aniŋ ka yitandi ko moo fana wuluta saatoo to wo kayiti fulo la a ka wo le seedandi ka aniŋ ka yitandi ko i la lakkira fana mu meŋ ti i la mu meŋ ti ila ah, ni nimole ñosoto ñaadile wulukato kolel siloñin tan molla ila hadamaya ñantoñi ñanta timmala ñamento ate mu kayitel miyalan ko commen na to e kattola ñamin man safanaya e ke ñanta to ɗila la wala ñama wala wulukato ñinti o saabu kamala nin mo ñanta suulatala sarti dantan bija ñanta o timmandi la abowol kono ah, nos kayitoñi natum dinni denano men wuluta kutake ala nos kayitoñi boltala ya sammana anin alfa la k'a ita ne ko karin kar le mala wulula ti fa la wulula kaito ni yo sai yin taram ah, ni fana man soto nyanta kaito do soto la melan ko ka kal kaito kayto fana ka shedar kayto melan ko akabo kal bulu anin fo ka atam waranto meul ka ah, ah, ila tampuro ka bala ikol fana nan wulu kadi dadula ani alfa la kaito kafrin woma mo sina wulu kaito ni soto ni wol botaje sayindum be fere fula ñam men landi kan wala ñinti ko wulu kaydi kutoma men mba di kan ñanda men ñanta kele ye ni nanana kotoma soto me yanan ko kotoma eldo tala ibe men naati la wala wulu kaydi koto ñinti uh, ni wo naati doron mbe wulu kaydi kuto ñin diile lale ni kata moti me yanan ko ke bala moti men keta bala bala uh, eh, kolere ibe men naati la wala ila id card ani la wo wulu kaydi koto ni wo damma naati nde ñinin kala ila alfa la kaytol la mbe wulu kayta o dile la wala ñaama ila id ka nomba meme ba bala mbo fo fana sound la ñi wulu kayta kuto bala nomba ka bala be ke abe ke clint ñinen kuti melan ko ibe satto tala ni nimo alkal eh, wulu kayta koto soto anno say in lafta wulu kayta kuta ma ñinna mbe ñinin kala alkal kaytol la bol natila anila alfa la kayto ñi na tresio ñi man ah, sangi tallulu katawo dumala ama ah, o gadawe santola mbe ñinin kala ila alfalla kayto ñinala ila alfalla shedar kayto wala kayten ni ko kar ni kar ne mi la wululalti wala ibo fana natila nin dinol fana miyalan ko e siyo man sangi tan ni seysi mole ñantana la ke sankaya a wulu kayte de dadula to isnaji sasoto ina ta ñin fana ñinin ka nka min di kaytin di men fana kadi men nin id card ka moliya ata manke id card wo fana mun ga mbe safarol ke kan sayin pour ñin sabu kamala sinin na wato sita moolu men ye lon koye ñantala lo to pour ila jaarolo bunda ñi sa timmandino ñami e isi e jaaralo ken sundiŋ soto lo prano to ñitata lo prano bunda to walaŋ wo feero ti melan kon ka kayto dila ko fanaŋ kayitanni ko sayi wo kayito ñin wo ñanta dila mobel luntaŋo ana duriŋ a ñanta dila bel sila sila be gambe jam wo ñanta wo be kasoro ban kuraŋo maŋ eh, luntal loŋ amaŋ durin lo bari natam men lafta men eh, bun la mole ñoto wala ñinti ko wulukayto mu kayitlet me ye lanko biito wuluta na gambe banko kan jaŋ gambe diŋolu men ye lanko i ba fa kilim wuluta jaŋ waranto i bee wuluta gambe janne ne waranto ah, gambe diŋolu le me ye e dingol wuluta bantala banko kaŋ numu gambe diŋolu to fanansi si wulukayito sotono jaŋ ne ah, niŋ mutanaŋ pour ila yaa ka yitandi le ko fanaŋ ye jan soto anen fanan ka di mola men fanan hanna bana fa man wulu gambe jan badinno fan wulu ta gambe jan wo fanan munat nan ko ke pour nyin sabu kama amari kana ke yantan moti natnu ala mol wulute murte ya o kaytolu be tala ka itane amari bota banko min kan ani ala alfa alfa mu menti abe ko ko men tol fanan namol men ka wulu bantal banko ka e ka sula je kayto nyin ka itane ko ni murta su isaje e ko be kenan su dimunta nyadil o kayto fanan kaddi wala nyam bari eh, ñin do ñin ko dol ka miro dol nge ko eh, a sikeno kolya do kana ka jidi ko ka dilun tangol be la nin na hani na wo mu kumalti melan ko eh, kuma ko aman kuma kuma sodor balo le ngoti ka dim men na wala ñinti ko momo ñanta sot la la ñanto be jele pour que ya ya soto bar men fanan ko silale mu ngiti ko fana ñanta sot la yo do fana be na na fo na programme tambila to ko modol be jen ke je ko luntangol le moti ni niijere lorin dinkirato bamana ko sami ma anka luntong lanka kaytudde wala hani madi le wo dalilo kan sa luntong me alan ko ay dingu sodoja hani wo dingu fanan tata menta sa waranto abbe kayto nyini ka wo dingu le yare e bajela e bajela rangotol afana betara rangotol anum fanan nat fanan ala fanan insurance kayto nyum fanan anyanta fanan sotla ko be kafru nyom walatna nyinen kuti tarambulot me alan ko nga fero landi pour ka banko dingul la nyanto nyin dila nyama kela lansar yayi tan fana nyama min ye lanko fana be sirin janna fana ke la lodula fana diila fana ñaama ila ñanna fana ila ñanto mum fana men fananti nga diila ñaama ñinen kuutin be men foka kan ana ñinen tarambulotin be men landi kan ana ñinen fente be a yitandila jama be lawol ñaama pour mool be sa fahamo ñaama annon kuma kan do kam men ye lanko ka fo ko niyeñin kayto soto ite fintino la banta mbayiten le ko mool la ko jamono o jamono ana wato lem fen fen sulata ala wato men sulata men na wato alhaalo men ñaama sayin jamano ye yin alhalar kani kaniŋ sabu kamara nin kai to man mokale a maŋ ta la taama bari a maŋ bali ta mala ana mela la haji ya feŋ funa ya yi la hajo betendiŋ kadu ni i sulata la waati waati naatuŋ bai be mansabulu meŋ be timmariŋ i sulata la waati waati ila kai don na filita waranto ko a kumkumutema niŋ naata i futata mansama a sa diinoo la koteŋ ke meŋ ye lanko ate bàyyi ñi nan kuma ti mena ko kuma la sutiya kaman safo jama'a rahmanu le aljam okay bana way uh, lamin bi fati who is the uh, registrar now ñu ñu si uh, jibril jaaju nga xam ne mooy the director of planning jibril ñu bëri dañ ma dee laajte waaw ñun am nañ birth certificate already lan moo tax ñu war a am bu ees oh, jë jërëjëf Baye so man damaa laka si joola waaw eh, eh. so um, famoni wol ni nije senu mati eh, wuli ministre of health e tontonge sene ti white house ti eh, you know, you know, eh, eh, kadu judo wene woli ja mo famu be wondu baj kayit kajebe ka kajebe ka yisena mati aw mo famu men du baji e eh, so white kila won wonu ton esene kabu ñoo fu nga fa wuj ñaa ñaa danaka wul you know eh, wuli kobo fu len fu fo gabunten comme man baye acceng ñaa eh, eh, eh, wati yo wati wulinu nu baje buga buga la boyanam apurum de sukaye ayi se nya waita wayta wala tingere you know ayi se nya waita wala tingere su suk saken ka jupe you know kuma nyire mande kata ko kata ka jake mande kata kanu manje ana lake sinda mana jonen bawo kata ku joja be je seti wulu kete kanyana ku ngare man ko safe ku tik ja kanyana ku kila baba baba assignem kayta ku kila so o wasinye ja ka jupe kamonya you know eh, tingara kuma mati kayta kuku siñayti umiñama mante jake mante jako so mo kim wuli nu lako lako ministre of nu wonor mati ga, eh, ku gamena ano sala nu manje na woli wol babe ku baje baj bu gal ma ku purja tingra be ka yise nak mati ko babe ku baji so mo kim na nu wonorum nu e e e eh, eh, eh, eh nu sof mati nyeme wala pop wala na prena na fa nu manje e eh, eh, dunia buram mati sample yanu manje eh eh, eh, eh, eh, gambia kubaba jopo unm electronic birth certificate uye ñamono useni dia tanno sandu je duniya wise ña mati gambi nu wolle hani kokuma be ceŋe le, le eh, eh, eh pour wuli mamu wolo nu mañ mati kayta ku kujajak mande kujakol yo le ŋar waaf e le ŋar waaf wapiye wul pat wolen unakendi systéme manu prenu manu juk mati umu ñamono kayt kana bajum kayt kallagen moo kiim wuli nu ŋodu système mawe ñaamono pour mambu wolen usen ano san anu manje dedu nu baji nibo fa nu baji monu wol nu uyeken kayit kanu manje panu wol nu yuso suke suk nu je wada kayit kanu manje hanu kane aw leto ku ñole pan ku ku jo man ku cieng man ku wolen ku maj lesila yemo ku purmulo because kayita ku ke ñaamono e eh, e eh, nen nje upambo di ñambo karesa kola pan ku lakoto kunyola mpo karesa kuma pankula kono kopo kuba ja kunyola kujaw ja bio iro eh, eh, pio kuwalen kujaw man kuwalen kumanji systeme ah wulide pamolele umanjutu pamola kareso so system pene wole ne prenu mane yise ni mati muyu pamolu pamola kareso koke wa nye mo me nyamon ka jupe ujo ja be chengeti kayta koli wuli nu gale gal be be be nyeseti waitaw you know fakujaw di bukei akais manu ujike ujike ujike ujike nu gale gal fan anya sati wata ne momi nyama kada kole you know kada kole jinjim pulu mambu wolen useni kada kuke nugale gal moki mbogala bukila nu mangut man ku gamena ku ken bugala bukila moki woli pop nu man beka e ngoru program ko manu ngalo nya uye man ku gamena pop yokulo kuyokulo manya id card nomba yako nu jebeka jetum jetu nya id card kujike ya di systeme e pan seni id card e mati au malagen kada kanu bajnya kad kalegen so jomba lawe bukana manku bukana ko puru manku nga kayta ku ke nyamono ko puru di sembe manku mañ mati kayta eh, kuke ke nyamono bajut wafa nu manje comme comme man mr fatiya regum tata nyamono nu janjam bukana de reg mati e u bajja kayta ko ke you know e jali ka jabur nga eh, you know lesu <laughs> you know panteñi fanfan yo lema legen yo lema legen jeni babaj dimbay moy babaj te te pop you know ku tiyom ku kotom ku linom ku badiyambo ɓuram ko babaj kata ko ñamon kat kalleguet manja be manje mati aw e sukoyen wali pour di semme manu jo ñes kaytak man wono ndu bay so ki mbay wala nu preno e ñamonom ɓe ka yise mati e, e e e ba certificate e falle nay yo benye e jajak de ki ngallo ja ba certificate e falle nayi yanumañe ana gortuyo wuli panu seni kayit ken kanu e, e, e ba certificate yunkule nanu yeken yo pop anu ananu manjabo ba simin bugan ku gaba du dunyen e jo be fati ara o nya ayeke nja ayeke nja id card kep na wol na jo man wol nu seno wulo kayt yunkul e wa ananu manjabo ju ariget eh, eh, aringet simin sikila te pop abajut abajut ba certificate ba certificate e falle nay o na war najo be babu nyama di alkali man alkala seno kayit kanu manje war najo po be da sefa ma sefa tampe so alkali da sefa buron ko ren ku tampe man ku wolen ku ngoru wayta man wolen useno kay kayta kunkula kan no manya de sene e so so wayta mama toni ma mbere folo be faju Mm-hmm. ok ñu ñëw si Mass Diouf Mass Diouf uh, uh, you're one of the health promotion uh, education officers si ministry of health bi léegi amoon ngeen first phase boo xamante ne demoon ngeen si ay gox fii si the greater Banjul area léegi ngeen continuer ngeen dem si op bi yan jàngat ngeen am si the procedure bu ngeen si first phase bi nga xam ne ngeen su ngeen ñëwaatee pour def a second phase how lan ngeen di change. Um, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi. nuyo di gërëmagum ñi nga xam ne ni ñoom laa bokkal euh, plateau bi muy suma sëriñ Moustapha Ty nga xam ne mooy national registre ak euh, directeur Jibril Diadio euh, di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan ci jamono ji fas yéene waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ne nii moom mooy wundu registration of births si biir réew mi ak li nga xam ne moom mooy NHIS mm. di carte bi nga xam ne ni moom la ñuy jox xale yi ak képp koo xam ne mu ngi ci biir réew mi moo xam njuddu réew mi la wa doon doonoo doonoo njuddu réew mhm. pour rek nga mun a jot document boobu noonu nga xam ne nii bépp am doomu boo xëyee rek feebar boo demee nañ la am yombalal sa liggéey te itamit di nga mun a am am bépp matuwaay boo xam ne dañ ko jël ci yow te doo am benn jafe-jafe waaw dellu si si li nga xam ne nii moom nga te boo seetloo bu baax a baax ku ñu ngi ko commencé ci kombo gi nii di wàcc di dem ci gox goxaan mhm. waaye naka nañ ko dooree ba tey jii alhamdulilah liggéey baa ngi dem ci ni mu waree ba pare yi tamit boo ko seetloo bu baax a baax am nañ ay ñoo xamante ne ni seen xel màcc na bu baax a baax ci wàllum logistique si ci wàllum am communication bi maanaam man suma po si bunt bi nga xam ne fa laa jógee ko ñu ngi yee askan bi di leen di xelal ba pare di leen di soññ ci li nga xamante ni pour ñu mën a génn si dem jëli li nga xamante ni moom mooy kayitu jur bu bees bi te boo ko seetloo bu baax. kayitu juddu bi ñëw na ci anam boo xamante ne comme ni ko Moustapha Dey waxee ci ndorteel gi bu njëkk ba dañ daan joxe kayitu juddu waaye di nga gis koo xamante ni dina am kayitu juddu am fukki point of registration maanaam man mi jóg tey dem uti kayitu juddu. Mhm. su ma kayitu juddu réer. Mhm. ma dem ci beneen gox amee fa kayitu juddu. dem feneen amee fa kayit juddu dem feneen amee fa kayit juddu so loolu nekkoon na jafe-jafe goo xam ne pour ñu keep database bi daf doon nekk problème. ñaareel bi demoon na bi nga xamante ne nii boo feebaree benn nit ki di nga am ñaar ba ñett ba fukki nombres yoo xam ne nii yow kenn nit ki yaa ngi ko am te fekka warta demee noonu. Mm. waaye gannaaw yàlla ak ñoom seen màccum xel ñëw na ba tey jii ni ñu mun a créer lii nga xamante ne ni moom mooy um, ECRVS campagne bi pour ñu mun a jot réew mi yëpp. képp koo xam ne nii doomi réew mi nga donte yoo sa ay waajur ne nekk nañ fi wala nekkuñ fi wala yi tamit wane na rek ne si biir réew mi nga juddoo dinañ la mun a jot waaye ci ban anam la baaxee benn unique number bi nga am ci kayitu juddu bi boobu walaay topp sa géeri dund yëpp foo mun a dem boo feebaree ak foo mën a dugg ci biir àddina si benn number bu moo lay topp. Mm-hmm. nga gis ne dina am nañ benn jéego bu rëy bu yaatu boo xam ne nii am nañ ko wala ndam boo xam ne nii am nañ ko te euh, bu njëkk ba nekku fa ba certificate bi di nga ko mën a jëfandikoo pour ñu mën ko tey ji soo amee sa moto nga génn am infraction si si bi pour police bi mën a xam ne moto bi belongs to A or dañuy am pour QR code ko rek mu joxe detail si moto bi yëpp yaa ko moom moom loo ko dina feeñ naka noonu ba certificate boo ko amee yi tamit noonu lay nga xam ne nii bu ko testé dina feeñ mu xam ne diwa moom ko kayit di ah, léegi fan ñu ngi ubbi lines yi mhm. asalaamaaleykum waaleykum naka liggéey bi. sant yàlla alhamdulilah loo bëggoon a laajte. jaama rek kañ. am comme affaire ay diplôme ni ba certificat waaw. because last time dañ waaw. waaw waxal. hello. ok Mass dafa am loo xamante ne. moom laa bëggoon nga clarify bu baax because ñu bëri man su suma maasi sax demoon naa si place bi pour ut. baa ko de waaye lan gi daf dee daf dee xaat. ah exactly das das. amaana sax. soo am nañu fa nekk depuis suba bee bee bee ngoon. bee ngoon waaw. da nga gis ay nit ñëw foofu noonu. ñoo xam ne yaa ngi fa jiitu ñuy jo ñuy issuer gars yi élevin na te loolu xam nga issuer ibin fair. waaw. waaw loolu loolu laa daan liggéey pour affaire liggéeykat yi kan bi parce que doo mën a doo mën a nekk foofu depuis suba benn ngoon keneen ñëw léegi léegi ñu ñëpp suñu toll ok waaw waaw ok baax na jërëjëf loolu laa bëggoon pour nga clarify lan moo dee waral process bi mu dee yii cause man si suma boobu sax ñëwoon naa fa gars bi na suma tur ñu ne ma yow kañ xaaral bi ëllëg yow nga soog a ñëw man leen xanaa lu xew ñu ne ma rang bi dafa gudda di nga maa ngi woon si liste eh, about 112 or something Why is the process so slow? And can you tell is the how does the process even? Uh, um, jërëjëf Baye yaakaar naa um, maa ngi fi waaye maa ngi fekk sumay naataango yi nga xam ne nii seen xel màcc na bopp ba pare ñoom seen bopp ñoo nekk ci yaxi mbir mi. waaye pour ma jëm see saani kaddu rek mooy ne. Mhm. Um, système bi mu ngi on waaye dangay gis ne is internet based loolu nekk na nga xamante ne nii internet situation bi ci biir réew mi. Mhm. foog naa am nañ benn koola. waaw alors salaamaaleykum na ngeen def. jaama alhamdulilah. ma ne dama bëgg a laajte seen programme affaire bi certificat bii nii. waaw. man uh, am 31 years old waaye dama demoon uti ba certificate seven months ago waaye ñu ne ma ne uh, foog ma dem Banjul. yow bu ees bi nga doon ut wala the old one. bu ma bu màgget bi laa doon ut waaye ma ne foog ma bu bu màgget bi rek ma mën a bu ees Ah, a ñu ne fa nga ut bu magen bi den nga soga bu am bu es bi waaw waaye sama id card itam dafa réeroon so yooyu laa yoyla bugona jënoro wan ok bana now we have uh, lamin bi fati mhm. moom daf laa tontu bi même fo ka ñi ngi me ñini ka ala ate kayta gulu kato ñi ne waran do fa ñini kar la flo me ñini ka wala ñinti ko munat na kool ka tade demande mbay tan la mol la ko ñi mu fen net me yalan ko masina tamaro lem anin aka ah, alhawa abeden ni alhawa las ya mbe même fo la internet ñing kudol be je sayin na hamen ko men ta nyanta momo kafu kafu wala timo tim nyanta baraki yo baraki men ka bondi wala nyindi ko mo keme an tallula nyanta wor uh, safeno la tiro kono bari cokinyo wala nyin aka nasi ke internet la karol wala alhawa karola o cokinyo wala gambe man masin soto me yalon ko nyanta tare ala nyama ya sabu kunyin aka nasi do mandin molbu kay uh, soto no wato men nyanta sotla do fanan be je men kaje ko kaje ko donata nga satol lan je ko mo dantan be je niwol nata mol nyanta ye, ye, ye, ye silo diwol abol kono muskono ma abol kono kuranto abol kono keba abol ko mene alan ko lanjurtol mat fananti abol ko nan kono makamatiyol nan dina njar non kol odol fanan be je ni nata nyanta wala alfa ya bunya dile la ngi bulandi e tambi ka fonya nyaata odol be je ka fo ne ko ite bulano la no ma o mu doleti ni odo je kilin kilinal kono isalan ko mu vele bari mam mo fisande moti mem folo nata dron ñanta wala fulo jela ka yim o bandi ko ñun kon yo ñun do men labanta ñene kara ko ko amman kayti le soto wala ne kayta banyun kaydol tabul anyata men kala wala ñindi ko ni ila wulu kayt koto ngol fo ko nabe bulu e be la id card le sambala yo isa yete ko ila id card filter le la wulu kaydo filter yo kayt le tebul sa ñata kayti do le min la yalan ko membe sen ka yala ko itilan jumaati abaka ah, tara mo safari mo fonto ka fo mo karleti molle fana nyante sanka yala komi item karleti karnin karlin ibon ibota kankare kundale karnin kare fulane wala mu famati wol ti bamati alkalo nyanta wo sede yala le natu ni mankayti do soto sefo fana ya sede mo wutmo isna isna kol isna nye ko e nyanta wulu kare soto nyami sa soto nyam okay nyinga am benen call salam assalamu alaikum wa alaikum ah satur ak foy kole hello mané satur ak foy e ndey ndaw me pollawa brigama ok bana bisimila mbe ila kana fo ila ila fo e, ila fta men fola ila fta men ni ngala banque de na registration ko ni mhm ndanga register register yo banna place ba ni ye wrong place le tiji aha sombe ni ngaro ga nda gore tisala so andi da min tole because ngafoyla e ko priyare pisaye bari ko itel ito e kino wala dam abol nyama mbo fanan kelale min yalan ko ello be tabala ni mo bara kyolti mal yimani e kan moy bakel ni ko bara ni ka kafol bulan ye dokuk ha ambe jankon dro kala 50 dro be kelale wo fanan be kelaw ana watolem nasi da fanan bo kela wala ngayi ko karmen mina a memba kan nem bo datila kadum be ma bara bonde folo nin ko be wo be 50 dro kala sai abe ah. ka kaña to senko mo wala tan nga wato londala ni wo kata fanan be mol me nan ko ello be tala mbol ah. ni ta folo botala ha ah. mbol fanan senka no la ngi a ello ello be jen sa de daya nyanta keda de dala nyame to na le na bo ta ye kibaro di ron la ta ko ni wadi tar pe an bo fanan ta han bo fanan be kan kula la le anum fanan ferol be jel me nan ko hanni be siri la suko no Ah, kayitol fana be dela kanne bewol fana dela la sinan ko ni tata je ibe iba iba kala comme ah, kibaro le baki iba fana la nyame asi fana tol ma nyame sinan ye ko sa kenna ah, kune kono no ye ko ni sulo ketala amba bon la buntun kono nga fana di ma nyanta fana le ma nyame inshallah ah ok so fati dia fo nyame e o ni min nyanta kanyi kayitol mille eh, mille hello soto kato min ye hello soto système o min ñanta ka ave danaka appareil tale sai bare ma ma fundindi folo ko ya fo ñamen na wato sida mba fundindi la le so momo be sile yale ye kayto ni natal ya upload system o to sile la anala kafo mol be tarla office o kono ya be download ya jibe itela itela kayto e mistake ko min soto ya correct ni pare do dila yeta ya print kodo ya soto so wo system o be saye danaka appareta le bare ma, ma mo fanal loñ folo Oke Okay, uh, Mas, gigs na ay nito how much for example time election so they were vote then they were them maybe be guys and go fuga judo ay nga dem besi obbi mm-hmm. pour pour pour uh, vote ak with regards to this new birth this thing. Uh, do you have to go into your native uh, uh, village foo xam ne yow foofu nga jógee for you to get this thing wala yow wala yow mën ngaa wherever you are si gox bi fii nii mën ngaa am sa kayit um, um, foog naa ne loolu mooy the most beautiful um, part as far as um, this um, birth registration or e birth registration is concerned mm-hmm. dëgg la liggéey nañoo ak IEC pour ñu jéem ñoo mun a demarcatal all these voter register points waaw pour ñu mun a identify fan la gaay nekk bu ko defee ñu mun a wax nit ñi ne képp koo xam ne bëgg ngaa registré rek bu ñu la waxee ne fi nga dee saanee carte mu yomb ci yow nga mun faa dem nga xam ne am jafe-jafe waaye tamit fi nga nekk am na ñoo dañ di travel di dem all the way to the provinces pour mun dem saani ji carte but if you sit wherever you are tengah nga xam ne am nga sa required documents yi pour nga mun apply for this e certificate di nga gis ne di nga dem with those documents ñu register la te amben am benn jafe-jafe yow du jar nga dem ba si niitu pour nga dem ba anywhere waaye pour gën a dëgëral um, suma sëriñ Mr Fati regarding process bi soo gisee ñi ñu bëri di ci complain di ci am jafe-jafe because of the slow nature internet bee ko waral waaye tamit gis nga koola si ñëpp ñu ngi génnee exactly di communication aspects yi nga xam ne moo war a tax ñun as communicators ñu génn a dem ci askan wi génna waxtaan ak ñoom ñaax leen xamal leen ne lu bees la te lu bees itam foog rek mu am ay teexa teexa yu ci nekk foog ñu respecté ko ñu jéem a masaat mbir mi ndax bu ko defee ni ñu mën a génn ok baax na salaamaaleykum koola hello asalaamaaleykum okay kooku for now ko can disconnect now um, uh, most people uh, they are actually worried about uh, second phase bi ndax dina amaat ak su amaatee fan la moo amaatee waaw dina am incha allah te yaakaar naa this september right si la gars yi di ñëwaat pour ñu new ñe second phase sax waaye dañ ko ooyee mop up exercise gis ne fi ñu tàmbalee woon bi fu ñu am dina ñëwaat baamtuwaat ko ñi nga xam ne nii am nañ jafe-jafe si seen bindu ba pare seen certificat génn nañu am na lu ci lenta benn ñaar ñi nga xamante ne nii ñoom jotuñ leen a registré sax te fekk pare nañ pour am certificat bi ñoom itamit ñu génnaale ñu boole leen yëpp waaye wane nañ ni da dellu si same gox yi ngeen same gox exactly same point same centres ñu mun a am registré gars bu ko defee ñu jox leen seen certificat si allo asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum allo uh, sa tur ak fooy koole waaw ah, man Abdou Okay, Bana, Lobuna Lache? Um, about this erosion, you know, because Mahalay in Kyrgyzstan. Okay. Instead of Nitapal and Birkam, Nitapal and Birkam Abba. So, error will be incorrect. Okay, uh, uh, Mr. Mm, Fati, mune, uh, mune dafa garden bina the wrong well, area. Well, mbe memfo kan watu wale fem fatai ello sura abe munyala nyel demanding watu ben kan memfo manne kan watu aske no ngas manne kan fo. ni bara kiyo bonde anu lafta kandiro kela sen kandiro ka jankondiro ke kuol bel ngo ni molmi nan ko sayi to ita ñin um, safero man safi ku to feŋdol men ñanta kela je ku a nyama ila fala nyami aman timma wo timmandiro ñin bo kelal do manni kar nyaato le mbinawo kela inshallah ni ŋa dati be kibaro be fula mole na be kala nyani anu ibe tarla aman ka ko ibina fero fam be jele ko ibe damen to ibe uh, um, ta internet to don ye kibaro ñin kinan añata kila damen to saye natuga dedaro be keta a timmata soto be tibata wala nga tibada ñin timmandi wato men na sina ko wotmole kankaron be timmala ila karol o sabu kamala mba fulamo be ko fente je menan ko nga men natali ko fente je sa sa fonon ta de lanol ko tanke mbay silo be jel mba de dala nyami sa to be jel menan ko mba timmandi la do hmm. be timmata dron ibaje ko momo yalon ko ata safeta adasta je fenne safeta waranto dinkira ala safeta ala dinkira ala kayto bala me anko wo manka ala wulud lati isnaje ko ibo falin nale uh, mbe falin dro kelala ni o falin dro keta no inshallah mari bala kayto sala Allah taala nyame kadunga sato dolbe je tol kamul yale o atare mantara sefu banko kilintu misal fa ni ko kerwan kerwan jamal sodda gambe jaa Ah, ni tara iko dasilami fana daslami jamal fana sotula aɗa sikeno safere wato ñing ite ɓeyte ñininga kaka dasilami jumala iko daslami drong même ya yamina ta yamira ko daslami combo janne watara daslami sandule ay ɓayla ko ni niya e combo kela kayto bala ina e ɗum sandule ñeta tarla je mbe silo bolan bo walannale minanan ko sanduɓe kala je ñami inchallah ila kayto ñing be laftala ñami sa sota ñama ok ah. mhm. comme misa fati ade go men Eh, eh, eh. ananu manje musani sen kato ko nyam kunkula mhm. and ah, nanu jawm sinde wuding okay uh, we, can please pick this caller hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ibrahim aha na de jaam rek alhamdulillah ah man sen li la ah, fi ñew nañ ci wat time am dafa gàtt ok tambu gata laga am wuli ngara waaw waaye so ñun ñi nekk area bi ñee mënuñu am ok waaw so loolu laa doon lekk daal ok uh, ok We can have the mobe jani min be ijabi lo to ko fero fana be laari inshallah la min isa do man isa munatna muna fere be jeke comme mi nan ko briefly in wolof at the uh, si kola bi uh, luñ don wax moy période bu ñu dem suñ énee ak SARS mooy pour ñu meeg soo ne ñu fañoo yëpp jan jagar nañ leen kii liñ aajo ak liñ am ñu jox leen ko waaye si liggéey bu ñoo def dafa méngoo ak internet am na ne yeneen dañ si di am gàllankoor. Mhm. ràcc dooli dem nañ béréb bu ñu jeexal dañ di xam ñaata lañ si liggéey ak suñ énee bi ñaata lañ si war a liggéey moom moo tax da dañoo wëñeekuwaat ah, dem nañ ba boori fooñi dinañ wëñeekuwaat ñëwaat te dinañ delluwaat si béréb yooyu. nga gis ne ni ñooñu ak ñi nga xam ne amuñ ko woon ñoom ñëpp dinañ ko si mën a am incha allah. waaw am na benn kola ku xool ku waxoon ne affaire yi euh, turi dooma naka euh, kayiti doomam yi dañ fa def Brikama Baate fekk mu ngi dëkk Brikama. waaw eh, si si eh, in a case like that eh, you actually clarified it waaye bëggoon naa nga clarify loolu. si beneen local language maybe. Uh, uh, wasipol wa eh. course that's that's a very important question assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe hen komin faala mon haalunde wonno heeɓi woɓɓe ɓe andu ɗon ɓe inde honto ɓe jibinaɗo waway ko birikama kono gila ɓe landimo o haalnani ko laaɓi kon uh, ɗum taki ɓe windi toon birikama ba e si ɓe yaawi kadi e sa heppani ata yiyay noon rek ɓe heɓay toon mistake komin faalon haalunde ɗon wattu heɓot ɗon e nder campagne o si yeehi ha lebbi ɗiɗi yesso Eh, min hollay noon on jamano kibaari jiɗin sakitoɗo innede eh, himɓe ɓen ɗon ɓe heeɓi probléme e keeji jibinande maɓɓen ko ni e ni e ɓe foti wadde pour ɓe ara ɓen sansadi ɓe waɗa toon ko foti waɗade toon kono min woni gollude e ɗum min gasani taw ko ɗum tagi min fuɗɗani pour haalingol tuma e wattu o min fuɗɗata on golle kono joni miɗo yaari place ji ɗin fof min fala memin nde saare nden fof si min gayni ɗum kadi min noddete pour haala noon hono on heɓirte honto on heɓirta e wattu hombo on heɓirta pour men sansugol on mistie kon wonno toon pour men sansa waɗi ko ko foti waɗade toon eyyi ko ɗum woni jaabire soñe bay commani iwole ni sanke ko joola jola ko wole ko ku jampo ana nu manje kayta koli nan ku sani nu jugu to mati baba wan ku safle to nu manje wadan to lakoto e wuli e, e nyemo me la latu wolen ufale ni manu sani kayta ku ken way e, e, kulen ku gaba fucul wole systeme kennu jonnene yoy pare pare bat nu mamu meno campagne jawja bi focul wol panu nu jo manu nanu sanke nu di muyu manu wego mati sala nu manye kata koli nu waji do erreur aw ña panu yisi eh, pour nga banu wole nu jébé ngaré man wole nu falini manu kando wa nu manje wonu mamu be baje di kata koli so ananu anosana nu manje nu bawaj kata kuke te pop nu bawaj eh, eh, eh, eh bawaji wanu safel nu wanu manje warante lakoto di kata koli jambu somben jambi funya fole furi amide kando ja baraka e e e, e wuli padu prenu systeme ke ne jebe ke yisena mati bapu wale nun noken waita wali wuli panu jukuwa manu ufalemi. dipo da, e, e, e, e fulenga fo wujnya baba laye jupe janu jam kombo babe nyamono be birkama be kombo sa wuli panu na nu lenyu panu baj babe nyan silokun sigaba e silokun sigaba nu jebe baj manu lako manu joene nu so anosa nanu manje ubajut jambu somben wuli koku nya kota de talata arabay jole nya ponu leñu banjol be birkama ponu la ko si suka susi nya mono burum mon wol nu senu wayta kote de be si sigaba inshallah okay um, pour ma delu wat si lami dama bu won pour nga uh, clarify something when will be the next dates nga xamne si nga na defat that mop up exercise ak lan ngeen na ñaax ni ci pour ñu mëna prepare seen bopa bala ngeen na ñëwaat bala gaay di ñëw ah, ah, am na bi wala omma bi am bi wala omma bi so uh, when is the next mop-up exercise and how should people prepare themselves balaa ngeen a ñëw ok jërëjëf Baye uh, liñ doon wax mooy dinañ uh, dooraat uh, team yi jógee nañ foo ñi ñu ngi fa war a jógee tey ak elik waaw dinañ jeexal eh, tey ëllëg dinañ ñëw safely Inshallah. allah su loolu xewee incha allah xaar ñu pack bagage yi arrange everything and then information will go to the stakeholders if fi ñu bugg a xibaar yi egg nañ leen yónni leetar Mm-hmm. si leeta bi def dinañ si yokk lan ak lan lañ soxla si kayit mm-hmm. eh, pour wane ne li leen war a qualifier pour ñu am kayiti juddu bi ak insurance bi loolu ñu ngi ko bëgg a tàmmale ëllëg eh, pour tasaare leetar yi ak si ñu war a dem ak si gox yu ñu dem mm-hmm. waaye li ñu taama mooy eh, bési alarba lañ bëgg a dooraat alarba alxames ak juma ak samedi ñu ngi tàgget tàgget bi mu ngi war a doon institution si uh, uh-huh. in Yungibuga town, all government institutions and all private institutions within Gokbe, Greater Banyan area. Greater Banyan area. Okay. Be. lal ñooñu those four days we target of the speed but liggéeykat yi luñ if we are able to do well then then go again to si gox gi fi ñu si Bantaba si Lopitani, mm-hmm. and the primary schools yi nga are targeted areas mm-hmm. to go back there Don't tax ñu bëgg nit am dal ne we are coming back ah, te jubluwaay suñ demee any béréb mooy ne pour ñu make sure ne ñëpp am waaye racci dooli daf dee am yeneen saa jafe-jafe first day second day daw bi loo toona until the last two three days. waaw ah, gis nañu place bi daf dee fees waaw ok gis nañu loolu ok ah, baax na unfortunately même fo kam baadiŋole wala ñi dikko mais murna na dinkaal beetole hmm, saabu kama moo be si lamaniya ko min ye a lon koy maa soto koto ke ntaata damen to folo ke nde murla jeele kote ka yitandi moolu la um, ah, kulu kato be deda kotenke bay kam me ñininka mona be je sarto men be je wala ñinti men folol tal na folol lal ye men ñininka wala ñinti i ila nos kayto ila wulu kayto ila uh, alkal kayto ani ila alfal la kayto kaytande ko sulata ñinela ani dinkira dinkira be murla jele sharto ñin naata wulukaaru ñin um, be yimɓe ke kam wala ñinti ko sayin be baara kiyolu bonde kam bari kunku bindoɓe tentennal fo, fo buray wo saabu kamala niŋ ñiŋ kam bota je lopitalo fanaŋ be kontine le ka di bari ñiŋ uh, ah, alhaalo meŋ ŋa landiten wo le ñiti ko ñiŋ lokunna la ka bo arabaluŋo la ka dati ŋa dinkira jamal maa koteŋ be murulol tol ba koteŋ ke annum fanaŋ be dinkira kutol fanaŋ do maa la la wo meŋ keta dookudula le ti min ye a loŋ ko moolu be dooku la je mbe ñiŋ fola dooku la le niŋ min naata ye la dilal to i si fankanta i la wulukayito la aniŋ la id card iya ni wol ila aidi card ni la wulu kayta yo samma do la dron ni safir lal nata si sa safe fana sa sura ñam mhm. bat ni tara do la ibe do kudla o matne ke gam menoti de mhm. sa ni ñanta sotlanta lon no la nin kayti tebul mhm. yo ibe o satol timman lay te do kula isa ye ko nin safir lal nata ila do la to ala do kudin kirato isa sudona ñam yo be ñing ka kaji jama jama ka fa passeport be mbolle bawo mo banku di yalte hani la fraje la ko aidi card ye na buru ñing kamala nomba men id card bala wosi ke ba certificate bala asike atake non nomba fulati mi alan ko ndolbe men diile la ani immigration be men diila iye boño koto man la fol inshallah ok baax na jërëjëf ñu ngi leen di ah, jaajëfal si lu ngeen ñëw ah, teewe programme bi so ñu ah, ngi leen a fàttali allah next week dimanche same time same place nen fi nekk mën ngeen a call pour laajte any questions yu ngeen bugg a xam baax na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah Do you want an affordable yet exquisite home or a service plot from TAF but do not know how to go about it? Worry no more. Let me walk you through the process. 1. Book a viewing with us. 2. Agree on a payment plan you're comfortable with. 3. Fill out a reservation form. 4. Take your time to review, ask questions, and when satisfied, you can proceed by signing our sale agreement. And 5 pay a deposit, and sale is confirmed. From there, you can walk into your home and enjoy the real tough